jërë ngeen jëf dictionnaire Robert di téere bi ñuy wëree ay baati tubaab moom la l'observateur xëy ubbi ñuqi ca baat sa bu ñu naan médiation mu di baatub juróom-ñeenti araf bu mu teg ci diggante président Macky Sall usman son Sonko ubbil yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne ñoo ngi dégg ñu bari ci réew mi ñu yëkkati seen kàddu di wax waxi médiation ngir réew mi jóge ci ñaaxo ñaaxo yu mu nekk journal bi taataan ci xalaatub Alioune Tine bu Afrikajom Center bu docteur Alassane Daw dib sociologue ak xalaatu Babacar Dione di kuy ci politique ñoom ñett ñëpp li ñu xalaat ci médiation bi ñuy wax ci diggante président Macky Sall ak usman Sonko ñoo ngi koy wax ci page 3 bu l'Observateur journal Tribune xëy di ñu jox ñaari yoon yi Maître du Ndoye jàpp na ci la Macky Sall war a jaar su bëggee régler ka Ousmane Sonko ci jàmm benn bi moo di mu wotelu ci Assemblée nationale ab loi buy dindi ci code pénal bi délit corruption à la jeunesse bi ñu gàll ci ndoddal Ousmane Sonko ñaareel ba di moom président Macky Sall mu jël décision gracier Ousmane Sonko coow li jeex anki dina kay mel ne ku naan ñu kon ndax parquet bi Ousmane Sonko li muy mooy def ba fitna ak jalte jalte yi yi amoon ci réew mi première zone juin ak trois ñu gàll ko ci ndoddal Ousmane Sonko force de défense et de sécurité yi ci réew mi ci instruction yu ñu leen jox enquête dina nee nañu dajale nañu ay preuve yu mën a maye ñu gàll ci ndoddal Ousmane Sonko yeneen i charge daan yi ñu ko gàll ci procès bu Sweet Beauté ba tëj ko ci ñaari ati kaso yéene bi nee nañu bësub démb bi moo ne woon délai bu mujj ci Ousmane Sonko ngir mu dem jébbal boppam yoon constitué wu prisonnier bu bëggee def appel waaye amoon ci réew mi ci fukki ponk vox populi nee nañu ci la waa Pastef sukkandiku ngir tontu procureur bi ni ñu jàngee waxi procureur bi nee nañu moo di beneen cong bu ñu defati jëmee ci parti Pastef te duñu ci am ndam gis nañu ne parquet bi waneeti ne ne dafa far bu mu fës te it tëddeewul njaaxaanaay ñu dolli ci ne waxi article bu code pénal bi parquet bi di tudd ci ay waxam te article boobee di wax ci waxi crime de génocide loolee bu ñu ko yëkkatee mën naa ginnaaw raay waa sûreté urbaine tegguñu seen tànk ñoo ngi enchaîné arrestation yi Babacar Camara ñu naan ko Issa jàpp nañu ko ñoo ngi ko jàppee ca ginnaaw raay Ousseynou Sarr ñu jàpp ko ca Caaroy Ngagne Demba Gueye di trésorier communal bu parti Pastef ginnaaw raay ak Pape ñoo nga ñu garde à vue ndax tuumay jëfi terroriste yu ñu leen di tuumal Wuli Ndiaye bu parti Pastef mboyaan mi waa sûreté urbaine jàppoon bi nee nañu takkal nañu ko bracelet électronique na saxal kaaraangeeg réew mi ak yore ay produits yu mën a taal ba tax na mandat dépp nañu leen ba ñoo nga ci kaso ba kaso yi réew mi l'observateur ne nañu bu ñu moytul ci tuuru la jëm ndax fees dell la def jamono ji li ko waral yéenekaay bi nee nañu mooy arrestation yu bari yi ñu nemmeeku ci réew mi fan yi droit de l'homme ak jaaxle gu ñu ci am ak leeral yi bàyyee ko ci administration pénitentiaire jëm ci yooyu le wàllu ñoo ngi ci journal l'observateur mi te du yoon moom Macky Sall Walf Quotidien mi ngi ñuy xamal ne guddi ñu toll wute wuta ku nekk ci cell mer ndax waa organisation des nations unies di ONU teg nañu ko pression bay sàkk ñu def ay enquête ci fukki doomi aadama ak juróom-benn yi faatu ci réew mi ci manifestation yi fi amoon boole ceekit manifestation yooyu moom la presse étrangère bi di waxtaane guddeeg bëccëg Ibrahima Bakhoum di journaliste formateur di ñu wax ci source wa li indi ba yéene kay nekk réew di média occidentaux ci jamono joo xam ne ñi ngi naan ay weer des ci suñu digganteeg élection présidentielle yi am ci réew mi njiitu réew mi di Macky Sall moom ak yeneen ñeenti njiitu réew Afrique sol nañu seenu dàll wutali Ukraine ak Russie ngir dox fa tànki jàmm journal Les Échos moo ko bind ci xëtamu njëkk Soleil national nañu ëpp nañu ñeenti chef d'état africain juróom-ñaar lañu muy président bu Sénégal président bu Afrique du Sud président bu Congo président bu Comore président bu Égypte président bu Ouganda ak président bu Zambie seeni tànk mooy lijjanti fantasiro gi am ci diggante